asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan xaas euh, TV mbokk yi maa leen di nuyu ziar <laughs> <laughs> gën a Dakar tuuti <laughs> ay gars fekk sëriñ bi tey fi ma ko fekk ah, baax na waa Dakar li maa leen nuyu tey damaa dox ay kilomètres kilomètres ñëw seet si bésu mbëggeel la bésu Saint-Valentin la. man li ma lay ñaan mooy nga may gaay yi secret yi nga xam ne mooy téye sëy mooy ñàkk sëy nit ñi mën a bëggante seytaan du xasan diggante rab ak yooyu daal maanaam diggante bi daal nañ la ko mën a ñagee wala sarax yoo xam ne nit su ko génnee si diggante dina mën a ñag daal tey loolu laa bëgg nga mayal ma gars yi suñu soppee comme tey Saint-Valentin la jaw <laughs> ginnaaw bi ñu la bi ñu la nuyoo ah. Ah, di la ziar waaye Saint-Valentin ma foog na war a sol yére jaw yi xewoon doro yeeg yooyu wa nga ñëw sol sa jàllaabe bi <laughs> ah moo tax ma jaaxal ma ne ah loolu daal Eva <laughs> Eva war nga lijjanti loolu jaw xam nga dañoo nekk réew moo xam ni mm-hmm. gis nga ndeysaan c'est volonté baax na trop mm-hmm. mais nit ñu soxor nañ tey mm-hmm. ah, exemple bi ma lay jox waaw tey boo jëloon sa soxna rek mu sañ sañse nga sañse nga dugal ko rek heure déjà yaa ngi commencé yaa ngi nekk en danger déet pas sauf ñi bot ñaa ngi naan xaaral ma ñëw ñaw tàmbali dëddale ñëw. parce que xam nga lu tax. bu doon kenn ku nekk da ngaa yem ci sa bopp. réew mi yëpp nekk ci jàmm. bu doon kay kenn ku nekk tey yéenante bi ngay yéenante macha allah. Mm. kon kenn ku nekk ne yéen ci jàmm mais dañoo nekk jamonoy làkku moo gën fës. jamonoy làkku moo gën fës waaw. moo tax mag ñi naan ku ñëpp xam foo jëm doo. doo yegg déedéet. mooy sëñ bi am sa jabar. waaw que parce que fi réew mi toll la. Ah. xam nga mbir doo xool li neex ak li nakari da ngay xool fi réew mi toll. jaw ñaata nit a bëggante soppante tey ñu ngay dóorante jaas yi di demante tribunal te kenn bëggut a gis morom ma. jaw démb nit dafa ma ni. doom ji dafa bëgg jëkkër ji ba mara day tali. jëkkër ji bëgg doom ji ba mara day tali. mais kër ga daa problème bi. bu ñu duggee ñoom ñaar kër ga. kenn du mën a xool morom ma. luy problème bi. dëddale bu bon. te dëddale bi dañ ko def ci biir kër gi. des fois nga dégg nit ni la. nga bëgg ko rek du fa dugg du ma fa dugg. nga bëgg rey ba kottuma ko kër googu banaa ko parce que dañ ko dëddaleeg nit ki ba dëddale ko kër gi. Euh, est-ce que xam nga yow mën nga am sa alalu bopp sax nit dëddale kook yow ba doo ko bëgg. Eh, loolu moom oh, xam nga ñaata nit a tabax kër ci àll ñañ fa denk tey dëddaleeg borom kër ga ak kër ga ba du fa dëgg tànkam. bu daaloon otoom ba dem ba jub ko par force day wàññeeku waaye du àgg. naa ko. waaw waaw léegi waaw léegi loolu mooy dëddale kër gi parce que léegi nit dañ ko dëddaleeg otoom. léegi dëddale. ak xabtal wuute te nduroote wuute parce que xam nga dëddale uh-huh. lii la ñu bëggul mu def ak moom dagg nañ loolu xabtal nag mooy xabtal nañ ko mu dem defi musiba bi xaptal nañ ko mu rey nit xabtal nañ ko mu jam nit xaptal nañ ko mu xaañ nit xabtal xabtal xabtal xabtal parce que xaptal mooy bopp ganaar boo dooree rek borom ni bërët da jis nit jékki-jékki rek yaram ni kii mu muucu mag ñi dañuy wax ne bu sa yaram jekk jékkee daw sax ñu ne muucul eh, waaw léegi luñ ci luñ ci jublu eh, lii daw day taxaw ak xayma bu mën a doon eh, <laughs> bul xeeb lu tuuti. olof dafay wax xeeb nga xal mu lakk sa daay. te pourtant li taal daay ba xal su tuuti la. mais xoola day lakk ba lakk lépp mooy loo xeeb mën na laa sonal. dëgg la. <laughs> yaa ngi dégg léegi ah. tey hmm. nit ki war a mën a jàppale boo gisee mag ñi wax naa la ko fii ba eh, tey hmm. foo ma sa dugg hmm. nga fekk limo ba ca biir oto ba weex na te limo sirru bi garab gi la. dëgg sirru bi. garab gi la. moo tax doom jimu jur mën a tàng parce que doom la te ci biir garab gi la doom sokkee ko. d'accord mu ngi mel ni puuf rek. tey boo xaaree naaj tàng boo demee di wër reen bi doo ko gis loo tax. doo ko gis déedéet puuf bu naaj tàngee mënoo gis reenam. parce que doo koy làkk. kon sirru ba. moo tax poftan mën a toj liggéey. moo tax mu moo tax mu mën a toj liggéey. d'accord parce que reen ba. lu gën a yéeme amu ko mm-hmm. amul ci kaw suuf. Mm-hmm. moo tax ñu daan reenu poftan. Mm-hmm. am ñu koy dagg rek di ko takk. kese kese bien sûr. xoolal ba nga nee kese toj na. Euh, kon waaw xam nga lu tax. jaw li la nit mën a defal ci kaw suuf ba ca kese duggee rek yàqu ko. Ah. jaw layu mooy lan. layu. Hmm. mooy bees. ay buy bees luy lan lay génne. Ah, li ci bo li li nduróog moom te bokk ci. te bokk ci lay ah. moo tax danga daan jëm mag ñi xoolal li ma la bu baax ëtt boo gis ñu ngi ca teg layu wala nga gis ñoo xam ne dañ daan xëy sax jël layu kàbbar ko juróom-ñaari yoon jublu ko xibla bi ñuy génn génn dem léegi ñuy wax ni la ndurul loola te bokk ca mucc nga ca ca yoon ba nga jëm. réseaux xam nga xam nga ñaar dafa am ah. gis nga àdduna. Mm-hmm. wax naa la ko fi waxati la ko. Mm-hmm. gis nga liggéey. Mm-hmm. li ma gën a metti danga gis nit kuy dox di doxaaleeg liggéey te yëgu ko. liggéey bu bon waaw. ba ma laajee mooy. ki liggéey ñaar la ci jublu. xam liggéey naa pour diw mii li ma bëgg du sotti ba mu sotti maanaam ah. liggéey bi mu liggéey bu mu dox. comme mel ni Diaw Dakar Média comme <laughs> gars yi nag abonné leen Dakar Média léegi mu ngi mel ni ñu ni kii nangam hmm. léegi nag Diaw hmm. dañ lay freiné mooy pneu ba la ñuy bëtt oto ba du bougé mooy ki ñu tibb tànkam. maanaam liggéey lu mu. Diaw ki ñu tibb tànkam. mu tànk ba ñu tibb. ñu fas ko def ko fa. maanaam dott nañ ko ca kër ga. jaw ki ñu jël yéreem yóbbu jël yére a fas moo xam mu nekk Europe mhm. mais nga jaay ko ndox ni boo mu jéggi ndox mais du jéggi ndox moo tax ñaata nit seen néew rek ay ñëw parce que néew bu nit deewee existé tul parce que biddéew ba marché tul kon liggéey ba toj na. lépp si biddéew la. waaw parce que rawaxaan leneen la mais biddéew jëmmi nit la présenté kon bu fa loolu nekkatul rek biddéew ba nekkatul mm. est-ce que yaa ngi dégg. Mm-hmm. mooy ki nekk tey par exemple ñu ni diw mii liggéey nañ ko bitim réew ba mu ne ça veut wala liggéey nañ ko fa mu ne ah bu mu delsi waaye léegi lan mooy tax nit di jóge dëkk ak dëkk ñëw lan la këyit doo ko am <laughs> ñii ñu liggéey leen ci par exemple mooy seen biir tëj nañ ko pour doom bañ cee am ñaata nit la dal loo xam ne dangay dégg ñu ne la kër ga ngay dem di sëy doo fa jur doom fekk tëj nañ sa biir doo gis ëmb sax bay avorté léegi loolu ñaar lañ koy defee dañuy takk biir bi dañuy ah. takk biir bi wala ñuy jël rab sol fa diggal yóbbulu léegi su ko defee foo ëmbee mu woon la deret mu tuur sëñ hmm? xam ne dañuy ay sacrifice zaaru xëm ñaan yooyu hmm. maanaam euh, utiliser bëy wala nag la si xeet nag nag waaw bëy wala xam nga bëy yëf jinne la bëy dafa sob làmmiñu béy mun lu hmm? ne. réewu béy mun lu ne. réewu waaw si. a ah, deuxièmement. Ah ah. jaw xam nga nag dafa bëri façon xam nga tey ñi koy def da ngay dégg ñu ut xayma ni la béy bu ñuul. wala béy bu xonk. wala nag bu ñuul. wala nag bu xonk wala lu tax ñu tàmm ci ñaar yu jaw parce que tey par exemple Souleymane Diaw fii la niveau mu toll exemple quoi Souleymane Diaw niveau mu la. la mën a laal kii niveau am tollu deux deux la mën a laal kii tollu top dix dix la mën a laal mooy boroom nag bu ñuul booy liggéey lu liggéey bu bon dëgg nag bu ñuul lañ lay reyloo waaye maa la ci dimbali tey gis nga boo liggéey nit ki ba jàpp ko bala ngaa dee doo dox. liggéey bi day jàpp. bu dee xam nag bu dee dëggal fa ma waxee bu dee. nit ki dañuy yàcc ba mel ni yow. billaahi man gis nga. xoolal xoolal doom bi loolaal mu peer te xoolal ni mu ko parce que amul kaaraange. Hmm, xool ko xoolal barka soñña tey bala ngaa laal doom ba. boo moytul maare day taali ndax ndëg dina la jam fu ne. loolu mooy kaaraange. ko laalee. bala nga ko laal du la ko jaral da ngay bàyyi. parce que xam nga lu tax. Ah. naaj boobu lu ne mën na la cee fekk. boo pare boo ko jëlee ñu ni la boo lekkaalee étoile ba dee nga <laughs> kon yaa ngi koy laal mais yaa ngi xalaat am na nit ñoo xam ni automatiquement yaa ngi leen laal waaye xam nga ni ñii ngay laal tey nga dee ndax toggunu ci mhm. Mhm. Mhm. ni nit ñi bàyyi seen xel jaw dañoo nekk jamonoy kaaraange géej kaaraange tax moo ko fi bàyyi xam nga lu tax ndax loo mënul dara da xool rek bàyyi moo tax doo gis ko jéemal géej mukk. mukk mënuñu ko daal. xam nga jaw hmm. couple bu fekkee par exemple da nga nekk ak nit. nga gis ni seen départ neex na lool. Hmm. lu waay loo wax waaja ni salaamaaleykum. Hmm, loo wax waaje kontaan ah jugal ci sa bopp senegal ngay gis ñaar ñu nekk ci jàmm ak salaam foog ni lii foog foog waaw bien sûr xam nga lu tax am na ñoo xam ne ree googu ngay ree dañ ñëw sa kër ne asalaamaaleykum Souleymane Diaw la ñu fekk fekk Souleymane Diaw toog ak jabar ji jabar ji di ataay di xàqataay mu ne ñi dañoo fuuy sax xol booboo koy jàpp ba mu dem tëddale leen waa siisu ah. léegi nag mm-hmm. moo tax ma la jugal ci sa bopp couple bi ci nekk bu ci bu ci bu ci nekk jàmm ak salaam rek jugal ci sa bopp xoolal tey sinon bu dul dara chaque jour ngeen dóorante di jéggalante chaque jour ngeen di dóorante dina am boo xam ne nag faay bi day jàll ba c'est fini. si yàlla musal. léegi nag moo tax nit ñi jaw da dégg nit dem bër dem bërëb ñu ni ko nangam nga dégg ñu ni ko boo fa bëggee yàgg jëndal dàll nga génne ko sarax. ah wala da koy jël noonu doo dégg mag ñi naan boo bëggee jur mbaxana dangay nangoo doon dàll est-ce que dégg wolof yi léegi nag ku jigéen ki bu génnee dàll ku góor ki génn mbaxana seen sëy yàlla doo koy barkeel <laughs> li laa bëgg xam nga lu tax gars sant xam nga lu tax hmm. dàll boo ko jëndee fan nga koy doxee ci kër ga nga ko jëndee fa koy doxee waa léegi nag gis nga dafa am maanaam sart bi nag la déglu ko bu baax waxuma nga jënd ko génne ko sarax da koy sol summi ko door koo saraxe ah. mbaxana bi mbaxana bi mbaxana bi it koy sol summi ko door koo saraxe ci kattanu yàlla gis nga ni mbaxana dina féetee ci kaw seen sëy dina àggee foofu te ku leen ci jéemal dana fa xastalu ndax kaw ak suufa ko sekk daal la ngi ci suuf mbaxanaa ngi ci kaw waay est-ce que dégg nga xanaa xanaa doy na. Kado eh. Saint Valentin ko <laughs> jaajëf.